waral lii tey defe naa ne baax nañu leeral ko ndax dañu nekk ci euh, épidémie boo xam ne ñu ngi ko tuddee Covid 19 loo xam ne jàngoro ju laal àdduna bi yëpp te ñun Sénégal mucc ñu ci ñu ngi ci am ay cas yàlla def ñu nekk ay kuréelu jigéen ñu tudd Forum Femme Dakaroise di ay jigéen yu am solo di liggéey ci biir espace communal bu nekk tey jii ñun tamit ñu ne ay citoyen lañu. ay actrices de développement lañu war nañu mën a indi tam ñun sunu wàll ci jàppale askan bi jàppale suñu communauté yi pour que ñu mën a jël ay mesures préventives maanaam di raxasu saabu ak eau de javel setal daal ba moytu jàngoro ji kon looloo tax tey ñu dajaloo fi defar saabu bi saabu bi ay jigéen a ko defar jëndi wuñ ko eau de javel bi ay jigéen a ko defar saabu bi waa Médina ñoo ko defar eau de javel bi waa UFG de grande Dakar ñoo ko defar ñu booleeg sunu dërëm ak sunu ñaar dërëm ànd ak sunu taxawaay joxe suñu participation ci lii nga xam ne tey dañ koy jëmale ci biir communauté bi. waa bi ñu waxtaanee ñun ñëpp entre leader dañu ne comme suñu participation citoyenne la ñun dañu koy jëmale ci hôpitaux yi centre de santé tey Médina moom centre de santé bi lay dem ak polyclinique moo xam ne hôpital niveau 1 la. li ci des ñu dugal ko bi ci biir askan bi jox ko ménage yi nga xam ne peut-être dañu néew doole mais gën leen sensibiliser action bi daal dafa war a gën a sensibiliser jigéen ñi góor ñi famille yi pour ñu raxasu ak saabu ba set. moytu daal li nga xam ne loolu la ñu digle ci wàllu Covid 19 bi. benn état jàppale gu ñu gouverneur jàppale gu ñu gouvernement plutôt jàppale gu ñu li ñu am daal suñu doolee bopp la ñu dajale ko parce que dañu ne action collective boole suñu dërëm boole suñu xereñ boole suñu xam-xam boole suñu ànd bu rafet ñu mën a def lii suñu participation citoyenne ci xeex Covid 19 bi. est-ce que mën nga ñu fàttali yan commune ak commune ñoo xamante ne ñoo sekk seen kuréel. waaw kuréel ko seq parce que forfait dak dafa nekk au niveau régional. mais du ñëpp ñoo teew mais ñëpp mun nañu wax tey ci turu forfait Dak commune yi ko seq benn jigéen forum jigéen Médina nekk bii ci commune Médina ñaar UFGD nekk ci commune Grand Dakar ñett Coco Femme nekk ci commune Mermoz ñeent Géejawaay collectif femme Géejawaay nekk ci commune Géejawaay am na yeneen communes yoo xam ne dañu ne dañuy xaaj liggéey bi defandoo lii ba pare suñu yàlla dimbalee ba ñu amaat yeneen moyen ñu yaatal suñu yeneen morom aussi jot ci loolu daal mooy suñu objectif au niveau régional ensuite au niveau national mais balaa ñu dem national ñu ngi ci au niveau régional dañu bëgg au niveau bi fépp foo xam ne rek kuréel nga fa ay leader nga fa ay conseillers nga fa ñu fexe ba forum femme dakaroise am fa taxawaay am fa kuréel bu rafet nit ñi liggéey vraiment indi suñu participation ci li doxal Sénégal mais suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm la ñu boole dañu war a bokk ci ñi ñuy jàppale te ñun luñ ñu jox ñu delloowaat ko ci population bi jàppale suñuy nawle jigéen rek moo ñu tax a jóg jàppale communauté bi moo ñu tax a jóg xëy na tey Covid 19 moo am yàlla na ko fi yàlla yemale aar ñëpp ba mu yem fi ci ci barke kilifa yi tedd yi ci waslu di ñaan lépp mais su lii génnee incha allah rabi dañuy continuer waat suñu liggéey kon ma ñaan samay nawle jigéen ñu mobiliser waat ensemble bokk ay action collective pour l'intérêt de nos populations. ñëw fekk si suñu nawle jigéen yi di leen jàppale si ci acte bu noble bi nga xamante ne moom la ñu def. parce que dañu toog ni ko sama présidente waxee Yacine dañu am pandémie boo xam ne bii c'est mondial mu touché fépp surtout nag ci ñun ñi nga xam ne vraiment ay jigéen lañu te dafa am benn contribution buñ ci war a def moo tax ñëw jàppale si leen daal pour euh, acte bi gën a noble daal. yem euh, mu ngi ci euh, département Dakar mais dafa dugg si ba département Guédiawaye parce que lu tax dañoo am benn présidente boo xam ne dafay partagé moom dafa bëgg lu muy def moromu jigéen ñëpp santé ci seen bopp moo tax yemul fii dafa dugg si ba ci banlieue parce que xam ne yëf yi xeex bi ñun ñoo ko bokk loolu moo tax suñu teewaay. comme feebar bi ñëpp la laal macha allah moo tax ñun ñu def ci suñu wàll rek ensemble vaincre le Covid 19 loolu rek a ñu fi indi. ma dernier mot maa ngi remercier surtout. la coordonnatrice euh, Yacine Diagne di remercier ñaari unité de production c'est-à-dire waa Médina ñu def savon bi ak waa Grand Dakar ñu defar eau de javel bi pour wane rek ne li ñuy mënuñ mën nañ bañ di jëgaani ji parce que lii nii ñun ñoo ko defar fii di encourager ñëpp di ñaan yàlla yàlla yemale fi feebar bi buñ ko gisati ci àdduna tey jii dafa am benn feebar boo xamante ni dafa wër àddina euh, te ñun ñuy ay femmes de développement ñu war a indi suñu participation ci feebar boobu ni ñu koy participer nag mooy liggéeyal suñu bopp ah li nga xamante ni moom la feebar bi laaj pour mu jóge fi ñu jéem a ah, def loolu pour feebar bi jóge fi. di sant yàlla bu baax ndax feebar bi bi nga xamee ne dafa ñëw ku nekk yaa ngi toogoon sa ruq di xalaat nan ngay jàppalee eh, nan ngay jógee pour dugg ci xeex bi parce que ñun déjà ñun ay jaboot lañu ñun ñi ñun ñi formé forfait ak yëpp. à la base nekk ci communes yi ñun ñëpp ay jaboot lañu te ku nekk xam nañ ne pandémie bi dafa laal adduna bi yëpp léegi nag ñun ñu teel a am initiative que ñun dañu war a bokk ci ñi koy xeex ndax d'abord d'ailleurs ay jaboot lañu ba pare moo tax ñu teel a jóg pour def lii suñu boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm communes yëpp ñu naa di booloo defar ko comme ni ko présidente Yacine Diagne waxee nga xam ne moom mooy coordonné Forfedac muy forum de femmes dakaroises action citoyenne nga xam ne dañoo boole ay pàcc yu ba ay gox yu bari boole leen ay leader ay femmes yoo xam ne yii dañoom seen seen xam-xam dafa màcc ci lépp parce que gis nga saabu bi ñun ñoo ko liggéey AFEM moo ko liggéey Médina eau de javel bi UFGD ñoo ko liggéey te niñ ko mën a liggéey noonu la ko géejawaay mën a liggéeyee noonu la ko Cocofem mën a liggéeyee ñun dañoo boole ay jigéen yoo xam ne ay liggéeykat lañu te forfait daag yemul ci géejawaay yemul ci Médina yemul ci Grand yemul ci COCOFEM comme ni ko présidente waxee ay ay ay communes la mais dañoo def premier tranche bi nii ñeenti communes yi dugg mais yeneen commune yi aussi ñu ngi ci biir lu mel ni Liberté lu mel ni Plateau lu mel ni yoof lu mel ni Kër Massar ñooñu ñëpp ci forfait daag la ñu bokk mais premier tranche bi moo nekk ñeenti commune yi mais ñeneen ñi aussi am nañu yaakaar ni suñu deuxième tranche ñeneen ñi ñoo koy def bu soobee yàlla. ci participation. oui man maa ngi tudd euh, professeur Fatimata Ly nekk fi euh, njiitu service dermatologie nekk ci biir hôpital polyclinique don bi Yacine indi tey teg ko ci loxo waa dermato pour hôpital bi la moo tax monsieur Ndaw nekk fi pour euh, représenter madame la directrice qui est vraiment di ci rafetlu double mesure benn bi le fait que ay jigéen booloo defar ko muy expertise locale deuxièmement ñu xalaat ci période pandémie nga xam ne ku nekk nga ciy dugal seen loxo ku nekk fa nga mënee loolu ngay def ñii ngi ñu jàpp ci santé bi ñoom ñu jàpp ci li ñu mën a defar indi ko loolu aussi ñu ciy rafetlu bu baax a baax te vraiment comme ni ko waxee yaa Yacine waxee femme Médina ñun ci la ñu bokk parce que ñu ngi fii ci diggu Médina hôpital polyclinique ñëpp xam nañu njëriñam ci biir euh, Médina fii sans compter que c'est les forums des femmes euh, de Dakar ñoo fi daje ñu ngi leen di remercier. tout d'abord dañ leen di nuyu mais aussi profiter ci occasion bi aussi remercier leen remerciement bi euh, dafa am lu ko waral parce que vous n'êtes pas sans savoir que jamono yi euh, waa Kër Docteur. mën naa ne communauté bi ñëpp dañ taxaw pour lutter wala pour riposter contre li nga xam ne mooy le Covid 19. dégg naa ko muy ne lii c'est symbolique mais pour ñun lii lu rëy la dans la mesure où fii c'est une structure de santé structure de santé boo xam ne c'est une structure de référence dans le district loolu mooy ne. tey ci district bi ku ne mun na dugg ci structure bi c'est un bien public mun nga joxe benn saabu boo xam ne plus de cent personnes dinañ ko jëfandikoo moo tax ma ne peut-être moom lu symbolique la ko jàppee mais ñun dañ jàpp ne euh, c'est c'est grandiose mais surtout di profiter aussi euh, pour ngeen gën ñu jàppale dans la sensibilisation parce que de plus en plus dañuy gis ne euh, am na ñoo xam ne ba léegi dañuy bëgg a jóge si kër yi di ñëw ci structure yi loolu baax na aussi ñu profité waxaale si parce que sensibilisation bi ni ñu ko mën a defee rek mu gën et la recommandation tey mooy ne ku toog si kër sentir ay signes du soxla sax nga déplacé wu parce que dañuy jàpp ne plus yaa ngi déplacé wu. bu dee da nga amee doomu jàngoro bi yaa ngi koy gën a propager donc toogal fi nga toog nga saisir lu ñuy wax la cellule d'alerte wala nga saisir ñoo xam yow boo mënul la cellule d'alerte mën nga saisir ñoo xam ne ñoom mun nañ toog saisir la cellule d'alerte bu ko defee ñun dinañ déplacé wu ñëw ba kër ga mun a def li nga xam ne mooy prélèvement bi j'en parle parce que de plus en plus dañ ko commencé gis et loolu ça ne règle pas les problème parce que léeg-léeg da gis ñu àndi ce groupe ñëw di ne kii lii la amee ak yooyu alors que le fet ko ngay ngay génn ànd ak groupe boobu rek bu dee am nga feebar bi yaa ngi koy tas. waa parce que dama leen di remercier d'abord yéen ñi fi ñëw di remercier l'Union des femmes parce que action bii ñu def ci combattre euh, lii ñuy wax euh, Covid 19 c'est pas la première fois ñu def ko ci. Euh, heure bu nga xamee ne euh, communauté bi c'est-à-dire la commune am na lu fi xew ñoom dañu ci mos a bokk donc c'est pas la première fois donc ñoom ñu am implication ci la vie de la commune te tey jii xeex bi ñuy xeex c'est une guerre contre un mi comme ni ma koy waxee invisible il fallait que tout le monde bokk ci xeex bi wane ci boppam ab mën-mënam pour que lii jóge fi donc nu en tant que adjoint au maire dañ leen ci remercier di leen félicité di leen encourager parce que euh, dama lii ñuy def foog naa ñëpp ko war a def donc union des femmes il faut toujours les encourager les félicités mais surtout les accompagner parce que c'est important ay jigéen yoo xam ne mënoon nañ toog seen kër di laaj ndimbal mais tey ñoom ñuy indi ndimbal pour askan wi donc dama ne loolu lu rëy la loo xam ne ñun en tant que élu mais aussi en tant que citoyen en tant que femme ñun dañ ci bég dañu indi seen ndimbal pour jàppale ñu ko waaw moom laa dégg donc euh, lii lu baax la maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ñoom dañ si war a bokk parce que ñoom waa Grand Dakar lañu donc bu ñu ñëwee indi seen euh, participation vraiment dañ koy sante yàlla di leen ko gërëmee di leen ko sante bu baax a baax di loolu mooy wane ne ñun ñëpp ñoo bokk xeex bi donc au la sax li ñu indi nii dama bëgg ñoom aussi ñuy dugg di def sensibilisation d'abord il faut que ñoom ñuy euh, yor ay masques comme man di raxasu ak yooyu di di def lu set pour que euh, tout simplement euh, ñu mën a am zéro virus à Grand Dakar vraiment jigéen yi yàgg nañu nekk en première position si lépp lu ñuy def donc tey bu ñu ñëwee aussi indi li joxe ko vraiment dama leen gërëm di leen sant bu baax a baax di leen delloo njukkal di wax ne euh, man nag xam nañ ma même en matière politique man jigéen ñi lay àndal parce que xam naa jigéen ñi ñoom ñoo gën a engagé wu te ñoom ñoo gën a liggéey te ñoom seen lépp dafay dafay set dafay sell voilà donc merci aux femmes de l'union des femmes de Grand Dakar